ba tey ci seen scandale du jour nañ seetaani vidéo bi ñëwaat. sëñ Mboub ndax xam na ko ndax sëñ Mboub boo gisee moom yëfam euh, tool be la euh, daara ji ak campagne bi yooyu la. voilà voilà ni ko waxee. Mhm. soppe ak coppite coppite. Mhm. mënuñu ko indi ci xel mi ñu yoroon bi ñuy tabax li nëb ba pare mënuñoo indi même xel mi indi ci coppite. te ñoom yi y compris ñoom yi ci biir l'INEP lañ bokk l'INEP laa lay wax mooy la képp koo xam ne ci biir Sénégal nga juddoo mhm. Sénégal dalal la ci école primaire yóbbu la secondaire yóbbu la lycée wala université nga pare mu jox la boulot mais tu es le même produit c'est le système qui t'a formé la partie rayonnante de Ousmane Sonko ou Diomaye Faye ils l'ont trouvé ils l'ont prise d'où fan lañ ko jëlee ñoom li rafet ci ñoom ak jikko jeeg kan fan lañ ko jëlee fan lañ ko jàng mais wàcce wuñ ci asamaan si Sénégal moo leen fabriqué c' est le même produit on a besoin de changement changement mooy lan Sénégal a deux pouvoirs deux systèmes éducatifs dafa am kuy dem ci école bi di jàng ñu koy préparé def ci moom investissement humain pour mu mën a taxaw réew mi am koo xam ne day yeewu di dem ci bedd mi di yàlla man sama candidat foofu la jóge ñooñu dañuy topp seen cursus ñee topp seen cursus ñun nous n'avons pas bénéficié l'éducation du Sénégal il n'y a pas ce qu'on appelle l'investissement humain que le de Sénégal na pas ci Sénégal nous a largué dans la rue et parmi nous daf y a encore par intelligence Le Guinée, ba tabax boppam ba nekk ci ñi respecté ci président Sénégal a un souffert avec ses intellectuels de 1960 à nos jours évidemment comme il l'a si bien dit nous avons été nous sommes gouvernés par des intellectuels ça ne nous a pas empêchés d'être parmi les 25 pays les plus pauvres du monde on doit essayer les intelligences gens

bi ma nekkee Amérique candidats yi nga xam ne bokk nañu ci élection yi ñu ci bari woo nañ ma téléphone ma waxtaan ak ñoom ñu ci bari dañoo envoyé ndaw sax ñu ñëw fekk si ma pour ma ànd ak ñoom mais bi ma ñëwee ñu ci bari déplacé wu naa dem ñoom ñi kenn ci ñoom mënut a jëlee réew fi ñu nekk parce que amuñu les les vraies informations de base askan bi nga xam ne ñoo soxla coppi ko ci réew mi mooy ñi jaar ci éducation traditionnelle de base mooy sénégal yi nga xam ne ñoo judd ñu yóbbu leen ci daara wala école arabe wala ñu dem jàngi métier wala ñuy bëkk néegu wala fekk seen i wajur seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom ñoo ñëw ba vingt e siècle ak explosion technologique. Mhm. ñu xam ni yàlla am na beneen yàpp bu dul géej di coup dañuy vulnérable ñii dañuy ñëw jaar en dessous de cette vulnérabilité brandir le flambeau de l'espoir su ko defee nit ñi di cotiser ñoom seen ñàkk actif seen inaptocratie bi ñuy dund ñoom la ñuy cotiser waa ji su ko defee moo tax c'est ça la partie régalante du gars les gens sont été hypnotisés mais bu ñu moytuwulee ñoom par malheur bu leen Sénégal joxee réew mi ñoom mhm. dans six mois bu ñuy àndaat di ñëw fii day laqal Mhm. parce que gëmloo nañ ni sénégalais yi ñoom bu ñu jëlee réew mi bu tëddee di nelaw ba Bassirou Diomaye fay ak Macky Sall def passation de service bu ñu tëddee di nelaw le lendemain malaaka yi dañuy wàcc ci guddi gi quoi tabax réew <laughs> loolu nit ñi c'est normal <laughs> mais il faut ñu waxante dëgg on peut plus continuer à construire ce pays sur des sur, des promesses il faut dire les choses qui ont bloqué ce pays le pays est bloqué il y a dafa am benn blocus bu tëye réew les gens restent les gens en discutent sur les conséquences mais les causes on n'en parle pas réew mi dafa am lu ko traité te ñoom amuñu capacité bi ku mënul wax li téye réew mi mënoo wax nooy def ba defar ko. yàlla baax na ñoo déggandoo vidéo bi le Sénégal a besoin de changement effectivement le Sénégal a besoin de changement mais ci bas degré cette besoin est au degré wala au-dessus de quoi bëgg changer di ba changer changer changer boo xamante ne après douze jours da ngay commencé waat ni su ma xamoon dëgg la soxla nañu changer parce que tey quoi qu'on puisse dire Diomaye du Sonko quoi qu'on puisse dire Macky Sall du Amadou Ba lu mu metti métti métti Amadou Ba du Macky Macky du Amadou Ba du Sonko Sonko du Diomaye Diomaye bu waxee ci ngay xam ni du Sonko Sonko bu waxee ci ngay xam Sonko du Diomaye Hola, il y a des gens qui te disent que dire que Diomaye moy Sonko c'est insulter la personne de Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko Diomaye physiquement ça va pas euh, euh, à l'entendre parler, ça va pas. Beaucoup. Amadou Ba Maki, Macky Amadou Ba ah man Amadou Ba si ma bête la bokk nak. parce que nag Amadou Ba fa ma Amadou Ba vous êtes incompétent Momit, campagne Tu campagne mais la bokk d'accord mais ça veut pas dire que Amadou Ba mooy Jomaay Amadou Ba mooy euh, Macky Jomaay moi Sonko loolu xel nangouko. man je suis pas du tout d'accord avec ces gens de slogans suis d'accord mako ay tu sais ma wax dara ci que parce que je suis ci bus ma ngi ci je suis ngi ci kër des gens qui te disent que bu Sonko dem mën nañ ni élection premier tour mën na gagner mais la personne de Diomaye dérange certains d'entre eux ba ci biir Pastef bi boo waxee ne dañu naan seytaane nga dangay fen dangay sos alors que c'est pas ñun ñu ngi dégg ñu ngi gis et on voit des fois nga gis ku la ne man Sonko laa àndal mais franchement la personne de Diomaye Diomaye ci biir ak ci biti doy wax te nag fi may daanalee rek mooy euh, ma tàggatooyee fa mooy que bu fekkee dëgg la Diomaye célibataire la est-ce que duñ ko dem ñaanali jabar suba vendredi wala sam ñu tak su ko defé nak à tout moment bu nekké président ñu en première dame mané bu fekkee deug la li ñuy wax deug la célibataire la xam nga célibataire dafa am maribataire am maribataire maanaam koo xam ne am copine té ñun wuñu lolu dañu soxla ko xamanté da ngay ñaan ñu may la ko ko mu nekk église ko mu nekk ci mais nañ la ko may donc nak bu fekke deug la les rumeurs li ñuy naan jomaay moom célibataire la bëgguñu nag président wu célibataire wax dëgg fa yàlla bëgg nañ jomaay mën na falu à tout moment mais nag nañu fexe xool bàyyi camp xam nga lënd xam nga samedi kenn du campagne li ñuy naan bëgg la tey takk la tey jomaay moo koy dund nag fu mu nekk nii jomaay moo ko war a dund gis la tey xam nga nit am e, temps booy nii élève bu ñu lay doxaan nee soxna si loo xam ci gis la tey bëgg la tey miir ci yow tey dee ci yow tey doxaan yooyu xam nga amoon ñoom Abdou ñoom Dawda ñooñu lañ daan doxaani ay booy miss gis la tey bëgg la tey loo ci wax <laughs> ñoom Abdou ñoom Dawda muy Dawda ku bees ku nekk ci temps kii def fi réew mi tollu <laughs> noonu lañ doon doxaanee <laughs> ma ne Diomaye nag doxaan boobu fu mu nekk nii la war a def samedi bu xëyee na dugg ci ci ci ci ci mbedd ndakaaru yu mbaa ak fu mu fu ko neex gis la tey bëgg la tey loo ci xam takk tey mbugeel Diomaye daa war a takk dëgg fa <laughs> wuy maa ngi dee non yàlla na xel dee